posée sur un rapport à soi, à notre appartenance et notre manière d'être, un style prononcé d'un rapport au réel qui respire d'authenticité. Ici, ce serait Moussa, chaussant des sandales de Ngaï dans les rues de Dakar, Aïda, qui arbore sa beauté en pagne, tissée de Casamance sur le pont Fédherbe, le petit Salif, qui déguste les mangues de Moro dans une rue, à la Médina. de l'arachide de Bombay transformé par des femmes du Nioro, vendu dans tous les marchés. C'est manger son lard avec le lait du ferlo, se délecter du poisson fumé de Joal, lever le verre de Kinkeliba avec du beignet de goupe. C'est un ministre habillé par un tailleur de face, portant un sac fait par un cordonnier de Koussanar, un directeur dont la dé décoration d'intérieur est faite avec des meubles, des menuisiers, de tendemayo. Consommer local, n'est pas qu'un slogan, c'est faire des pains composés avec des produits locaux, mil, maïs, manioc, nebedaï, niébé et blé local, cultivé au Sénégal. C'est faire du pain avec le blé de Sangalkam. Nous voulons sourire, rassasiés par notre terre, briller et être portés par l'art de nos artisans. Être nous, pour nous, à travers ce que les gens de chez nous nous proposent. On est présent en en ce que l'on porte, reflète et tout cela ramène à soi et célèbre en même temps un talent local. À la place du souvenir, nous marquons le temps d'un rappel, nous scellons un engagement, consommer local, mieux préparer demain et assurer notre souveraineté et identité. La culture d'un pays est un tableau d'art. Il faut que les couleurs qui le composent émanent de ses montagnes et de ses eaux pour un ancrage sincère. Ramon, nos génies de l'ombre, veillent sur la pirogue. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le ministre, de vous remercier au nom du comité national d'organisation du mois du conseil local pour nous avoir fait confiance d'organiser la troisième édition du mois du conseil local ici, dans cette place mythique qui nous rappelle beaucoup de souvenirs sur nos voyants fils et filles du continent africain, je veux citer, pour illustrer, quelqu'un comme Marcus Garvey, Léopold Sédar Senghor, Amadou Matar Mbow, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Aline Sitoé Diatta, Son Excellence Monsieur Macky Sall, que le comité national a choisi comme de cet événement. Oui, Son Excellence, M. Macky Sall, a été choisi pour deux raisons par le comité national. D'abord, pour sa vision, savoir doter notre pays d'une stratégie nationale de souveraineté économique. La deuxième raison, c'est surtout ses résultats très significatifs dans tous les secteurs de l'agriculture, en passant la pêche, la santé, surtout les infrastructures. Mesdames et messieurs, le mois du conseil est devenu, par la force des choses, l'événement national de référence en matière de promotion du conseil local. En effet, le conseil local, la promotion des produits made in UEMOA, parce que quand on parle de conseil on fait allusion à tous les pays de l'UEMOA, est devenu une priorité nationale, mais également une priorité dans tous les pays de l'Union. En effet, le conseil local je dois dire, est la quasi-solution des difficultés auxquelles nos pays font face aujourd'hui dans le contexte de crise. Monsieur le ministre aura l'opportunité de revenir largement sur ces questions. Je, voudrais, ne, pour ne, je ne peux pas terminer mes propos sans pour autant remercier tous les membres du comité national d'organisation du mois de consommé local, l'équipe de la direction des PME, nos partenaires notamment la DPME qui a une journée thématique, le bureau de mise à niveau, 3FPT, Fonds euh, et la DER qui ont une journée thématique. Remercier tous les sponsors et tous les partenaires. Je veux citer le promoteur Ndagolo, le promoteur du salon, la banque et des PME, activité qui va se tenir parallèlement en marge du mois du consommé, local. Je voudrais surtout remercier, Monsieur le ministre, les cabinets qui nous ont accompagnés, notamment l'OFBD et le cabinet Inédit, qui nous ont permis de faire une belle campagne de communication avec des affichages de rue, au niveau des abris bus, des sketchs, des slams, tout cela pour changer nos habitudes de consommation extraverties et pousser davantage les Sénégalais à consommer local. mënuñoo am lu gën a fort bay dunde mënuñoo am lu gën a foor liggéey jëfandiku ñoo ngi am mbégte ci loolu di sant yàlla bu baax di nuyu ñëpp nag góor ak jigéen mag ak ndaw di beral nuyoo ñi tànn bis bi cërale ko ki nga xam ni moo njëkk a wax consommé local muy président Macky Sall moom xamoon na ko xam bu wér leeroon na ko leer bu wér ndax ñun li nu am ñun li nu am bu nu ko gëmee yeneen réew yi dañuy jóge ci yeneen réew di ñëw di jéggaan si sunu réew ñun am nañu suuf am na nu ndox am na nañu feer am na nañu géej am na nu suufur ñun li nu am loolu mooy consommer local waaye li gën a am solo nag mooy xam jëfe bu nu ko amee ba noppi dañ koo war a xam jëfe ko xam ni consommé local bu nu ko xamee jëfe ko yeneen réew yi dañuy jéggaan si ci réew réew yi ni wër lépp ñun li nu am réew yooyu amuñu ko kon ñun ñi nga xam ni ñoo dëkk fii am li nu am nan ko xam jëfe ko te téye ko te xam ni li suñu réew am yeneen réew amuñu ko ñun li nu am yeneen réew amuñu ko wala réew yi ko am bëriwul réew yi am na ci réew yoo xëy bu ñu gisee naaj dañuy tàcc wala ñu naan kaay leen naaj waango ñun yàlla dogal na ni am nañu suuf am na nañu naaj am na nu géej am na nañu suufur am na nañu phosphate kon li nu am loolu mooy consommer local waaye la ca des nag mooy bi nu ko amee nan ko jëfee na ñëpp xam ni ñun li nu am maanaam bu nu am ci am nan ko téye jëfe ko moo gën ñuy jéggaani moo gën ñu di ko fi bàyyi suñu ko fi bàyyee it maanaam ñi fi bàyyi li nu am su suñu demee ci àll bi moom la ñuy liggéeyee wala bu nu ko liggéeyee bu nu demee ba mu yàggit moom la ñuy dellu siwaat fii di ko jëfandikoo kon nit li nga am da nga koy téye nit li nga am da nga koy gëm jërë ngeen a jëf ñoo ngi sant yàlla bu baax ci góor ak jigéen ci ñi nga xam ni ñoo xalaat xalaat bi ba ba créé loo nga xam ni maanaam tey jii ñun ñi nga xam ne ñun ñooy sénégalais ñun ñu dëkk ci réew mi ñun ñi nga xam ni amuñu dara lu dul consommer local ñu xalaat xalaat bi ñoo ngi am mbégte ci ñoom di sant di gërëm jërë ngeen a jëf. dañuy wax consommer local ñu koy wax ci olof bay dundee bay dundee boo ko xoolee kon day mel ni consommer local ci mbirum bay rek la transformation maanaam li nga xamante ne bii moom la ñuy jël di ko bay di ko utiliser. mais consommer local romb na foofu ndax tey jii réew mi mun nañ ko yóbbu foo xamante ne bii fu romb fii ñu toll la bu fekkee ne état par exemple tey dafa xëy ne lépp lu may jënd man état luñ defaree ci biir réew mi la ah dina am ko xasan bopp ne ko ah waaw mais feuilles yi nga xam ne ñoom la ñuy utiliser defaree wuñ ko fi état ne kon bu boobaa man danaa financer koo xam ne ci réew mi la nekk avance ko ci li may jënd ci moom mu taxawal fi usine boo xam ne dina def loolu su subaa bu bën ëllëgee dootuñu soxla di ko jëlee bitim réew 1998 Sénégal daf doon bind benn loi ci li nga xam ne moom mooy carburant bi maanaam essence bi ñu ne kon nañ jéem a xool ñeneen yi réew yi nan lañ def Sénégal ni juróomi nit ñu dem ca Mali pour xool Mali ñoom nan lañ def yàlla def na ci juróom yooyu laa bokkoon bañ demee ndeke président Mali dafa xëy benn jour rek ne man Mali dootuma jënd fenn carburant ci benn tubaab ci beneen kaw mii muy benn malien fa laay jëndee li nga xam ne mooy carburant ca suba ga rek beneen kaw comme marché bu toll noonu la gagné. mu nekk milliardaire ba nga xamante ne bii képp kuy jënd carburant ci beneen koo ngay jaar camion malien yi di def ay cent cinquante millions di jógee fii di dem foofu réew ma ci boppam le fait que ñu dénk ko liggéey bi suqali googu mu suqali réew mi créer na li ñuy wax industrie de transport ginnaaw loolu jàpp nañ léegi li gën a am solo ci ab réew pour ñëpp mos nañ fexe nuñ gën a transformer li nga xam ne mooy produit locaux yi. tey damay joxe benn exemple réew boo dem fa foo village bu gën a sori boo dem ci Sénégal bu fa gën a ñàkk doole dañuy bay xaal jigéen ñoo koy bay suñ koy bay daanaka duñ bay buñ fulaal sax dañ koy sànni ci ginnaaw woon ak mais xaal tey jii réew mu nekk fépp foo dem ci dëkk bi am na safara maanaam. luñ tàngalee moo xam ban matt la moo xam kër am nañ casserole boo jëlee sa xaal nga xolli ko jël suux bi def ci suukar baxal ko mu ngeer loolu ngay am mooy confiture lan mooy des nga am sa bocal bu rafet ñu bind ci confiture de njagañaaw wala de ñaagis wala de kom su ko defee boo ko jaayee état day taxaw ne man état kat dootuma bàyyi kenn dugal fi confiture waaw su boobaa jigéen ñi def confiture boobu duñ mos loolu lañu wax ne moom mooy li nga xam ne suñ jàppee ne li nga xam ne mooy consommer local mooy fas bi nga xam ne ci lañ war a ngawar pour dem émergence kon tey jii bu état waxee ne nañ jublu ci consommer local dafa nekk loo xam ne jàpp nañ ni lu am solo la lu am solo la parce que dina permettre ñi nga xam ne ñooy nit ñi ak luñ néew néew doole ñu mun a mos dara dina permettre tam état li nga xamante ne bi moom la daan jéggaane bitim réew mu koy defaree ci biir réew mi ndax consommer local dafay pousser li nga xam ne moom mooy suñu entreprise yi ñu def liggéey boo xamante ne bi dina tax ñu kon ne di leen jox liggéey bi ñu kon ne di ko def moo tax tey jii bu ñu waxee ministère du commerce et des bu ñu ne consommer local jàppale PME yi ci la bokk te bu PME yi di mos rek population yi di mos moo tax ñu kontaan ci lool vraiment di leen bëggal di leen sant. c'est un grand plaisir pour moi. de prononcer le mot du secteur privé à la cérémonie de lancement de la troisième édition du mois du consommé local. Permettez-moi d'abord de saluer la qualité des travaux préparatoires de cet important événement annuel qui vise à promouvoir à l'échelle de l'UEMOA les produits et services locaux et à faire véritablement du consommé local une affirmation d'une culture de souveraineté économique. force est de constater qu'après les différentes crises qui, qui sont la pandémie de Covid-19, la flambée des prix des matières premières, du coût de l'énergie et la guerre en Ukraine, la promotion du consommé local demeure la solution durable pour renforcer notre capacité de résilience et la survie même de nos économies. Je retiens les mesures prises par l'État du Sénégal à travers le programme de résilience économique et sociale presse soutenu par les départements ministériels en charge de l'accompagnement du secteur productif et qui sont résolument orientés vers une dynamique de concertation permanente avec nos entreprises. Le thème de cette édition, quelle stratégie pour stimuler davantage la consommation des biens et services locaux au sein de l'UEMOA est pertinent à plus d'un titre. En effet, l'initiative Mois du consommé local, célébrée dans les huit pays membres de l'UEMOA, est un événement phare en matière de promotion de biens et de services. Cette promotion vise particulièrement à montrer les produits issus de nos terroirs et également le savoir-faire de nos artisans. C'est la raison pour laquelle, en ma qualité de président de UPIC, j'accorde une place importante à la participation de nos entreprises membres, mais également celles que sont les TPE et PME pour le renforcement du tissu industriel sénégalais. L'industrie étant la clé du développement d'un pays, car créatrice de richesses, d'emplois et de stabilité. Madame, Messieurs, chers invités, le secteur privé fait encore face à de nombreux défis à relever, à savoir la maîtrise des facteurs de productivité de la main-d'œuvre et du fret maritime qui impactent sensiblement sur notre compétitivité. Les barrières non tarifaires et tarifaires avec des mesures de protection non conformes aux dispositions communautaires à l'échelle de la CDAO, avec le rejet injustifié de l'origine communautaire de certains produits empêchant ainsi leur libre circulation et l'accès au marché. Monsieur le ministre, c'est le cas du sel, produit en masse par les salins, où le produit est rejeté par certains pays comme le Nigeria afin de protéger leur industrie locale. La congestion portuaire, une situation inédite qui n'a toujours pas trouvé un dénouement malgré l'annulation des frais de magasinage et de surestaring obtenus par le patronat lors de la récente concertation avec le directeur général du port. L'accès au financement du secteur productif à travers différents mécanismes, la BCAO, les banques commerciales, bourses régionales, les financements novateurs, PPP, finance islamique et financement vert. Le coût élevé des facteurs de production, notamment l'énergie, l'eau et le transport. L'absence de mesures d'accompagnement pour faire face de manière efficace au changement climatique qui entraîne souvent une pénurie de produits comme le sel, dont le Sénégal le principal producteur de la sous-région. Il me plaît de le plan Sénégal émergent PSE qui un cadre national de référence des politiques économiques et sociales reposant sur la vision de construire un Sénégal émergent à l'horizon 2035. le PSE consacre dans sa seconde phase au programme d'action prioritaire conçu comme des mécanismes exclusifs de soutien à l'amélioration de l'environnement des affaires et au développement du secteur productif, à travers notamment les plateformes industrielles intégrées. Le financement global du PAP 2A, lancé en septembre 2020 lors d'un conseil présidentiel pour un coût global estimé à 14 milliard 14 098 milliards de francs CFA, dont 1835 milliards supportés par le secteur privé, cible entre autres les infrastructures, mines, énergie, transport, mais également l'agriculture et l'agrobusiness. Sur ce dernier point, Monsieur le ministre, il convient de rappeler que le Sénégal ambitionne, avec la création des agropoles, de renforcer la valeur ajoutée des produits agricoles et de réduire la dépendance aux importations tout en stimulant une industrialisation durable et inclusive par une approche des chaînes de valeur intégrées. Pour illustrer cette ambition, je prends le cas du riz, qui est une filière grandissante eu égard à la croissance démographique qui booste la consommation. Au nord du Sénégal, le long du fleuve, Nous avons plus de 200 000 hectares de terres riz cultivables non exploitées, faute d'aménagement. Un grand fleuve trop peu exploité par l'agriculture avec une très forte population de jeunes qui pourraient s'insérer dans plusieurs activités rentables. Le marché du riz au Sénégal reste toujours dominé par des importations de brusures de pays tiers qui pratiquent une politique agricole et d'exportation de dumping dont l'impact sur notre balance commerciale est énorme. Les sur le cordon douanier sont de 13%, sont les plus faibles des pays de la sous-région. Au Bénin, c'est 30%, au Burkina, 28%, la Côte d'Ivoire, 28%, le Ghana, 43%, le Mali, 32%, le Niger, 35% et le Togo, 28%. Nous, nous sommes à 13%. Sur le plan fiscal, le riz est une denrée exonérée de TVA. Par conséquent, elle n'est pas récupérable. Pour espérer un remboursement de la TVA, il est demandé à nos entreprises une lettre exceptionnelle au ministre des Finances. Cette situation joue aussi très fortement sur la trésorerie des unités de production. Je voudrais cependant magnifier la qualité du partenariat public-privé qui fonde notre espoir. et appeler davantage au soutien de l'État du Sénégal au secteur privé pour assurer un développement économique endogène, porteur de croissance durable, par la poursuite des réformes fiscales et sociales incitatives sur la consommation locale pour renforcer la compétitivité de nos secteurs d'activité. Le renforcement du dispositif d'exonération des équipements permettant de booster la production dans les zones nord et sud à fort potentiel agro-industriel. L'accès de nos entreprises aux fonciers aménagés pour faciliter les, leur installation et les renforcer a contribué sensiblement à la valorisation de leurs produits et de facto au développement de l'économie locale. L'assurance d'une fourniture énergétique stable. Nous avons un membre, Monsieur le ministre, la Casamanceaise, entreprise membre de l'UPIC, qui a choisi d'installer son unité industriel en Basse-Casamance à Boucotte village, 600 km de son marché principal. Ils produisent l'eau casamanceuse que vous avez vue ici. 350 emplois directs, dont 80% des villages environnants. Plus de 700 heures de coupures enregistrées sur les trois dernières années, causant des pertes lourdes de matières premières et de détérioration de matériel et d'outils industriels. La promotion des produits locaux, soutenue par une politique de labellisation et une politique qualité, répondant au normes. La promotion de nouvelles zones économiques spéciales régionales pour faciliter la mobilité des travailleurs qualifiés avec des mesures d'accompagnement incitatifs. Avec le programme d'activité de la pré présente édition qui se poursuivra jusqu'au 5 novembre, nous aurons sans nul doute des échanges fructueux au cours des panels scientifiques de haut niveau, des rencontres d'affaires B2B qui seront animées par d'éminents spécialistes du monde de la recherche, de la finance, de l'entreprise et des structures d'accompagnement de l'État. Les expositions des produits locaux et des ateliers d'art culinaire qui ont mobilisé nos entreprises et leurs partenaires nous gratifieront sans nul doute de temps fort de partage et de leur savoir-faire. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer l'engagement constant des acteurs du secteur privé pour le développement d'une stratégie nationale inclusive de promotion des produits locaux et du consommé local. Ces acteurs qui entendent apporter pleinement leur contribution pour un nouvel élan d'esprit de produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Monsieur le ministre, avec votre permission, je vais délivrer le message de M. Abdoulaye Diop, président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui aurait voulu être avec vous aujourd'hui pour célébrer cette importante journée, mais qui, pour des contraintes d'agenda, n'a pas pu se joindre à nous. Donc je vous délivre son message. Honorables invités, je voudrais, je voudrais tout d'abord vous exprimer la joie qui m'anime en ce jour du jeudi 26 octobre 2023, marquant la cérémonie officielle d'ouverture de la troisième édition du mois du consommé local au Sénégal. Je saisis cette occasion pour vous témoigner ma reconnaissance. Ma reconnaissance à l'ensemble des invités pour votre présence aux côtés des autorités de la République du Sénégal, en particulier les femmes qui sont venues en ces moments solennels et importants de la vie socio-économique du Sénégal. Votre présence témoigne de votre soutien aux braves et talentueux jeunes, femmes, hommes, enfants, dirais-je, producteurs, transformateurs, commerçants et transporteurs, dont les efforts quotidiens permettent aux filles et aux fils du Sénégal d'avoir accès à des biens et services essentiels pour satisfaire leurs besoins et s'ouvrir vers d'autres horizons à travers des produits de référence. Je remercie solennellement et chaleureusement son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, et l'ensemble de son gouvernement pour l'appui constant de la République du Sénégal aux initiatives de l'événement qui nous réunit ce jour, il convient de le rappeler, est une initiative prise par les ministres chargés du commerce de l'UEMOA au cours d'une réunion en 2019. Alors cette initiative qui à consacrer chaque année le mois du consommé local à l'intensification des actions de promotion de la consommation des produits locaux vise à relever le niveau des échanges intracommunautaires, donc entre les différents pays de la consommation des productions agricoles, artisanales et industrielles, ainsi que des services qui sont produits par les personnes physiques et morales qui travaillent dans l'espace UMOA. Pour la mise en œuvre de cette initiative, les États membres ont organisé au niveau national et régional les premières éditions en 2020, ensuite 2021 et 2022 avec Satisfeci. en mettant en œuvre diverses activités d'information commerciale, de sensibilisation et de réflexion. Cette édition 2023 consacre la volonté des États membres et la Commission de pérenniser cette activité de promotion économique et d'en faire l'un des principaux leviers de la compétitivité de nos entreprises et la croissance du niveau des échanges intracommunautaires. Mesdames et messieurs, le thème de la présente édition qui est Quelle stratégie pour stimuler davantage la consommation des biens et services locaux dans l'espace UMOA marque un tournant important dans la mise en œuvre de cet événement, en ce sens qu'il nous invite à réfléchir de manière approfondie sur les projets et programmes structurants ainsi que sur les actions fortes et mesurables à développer au niveau nationaux et régional pour impacter significativement le marché des produits communautaires. Du reste, il y a lieu de noter que quelques États membres disposent déjà de leur stratégie nationale de promotion des produits locaux et au niveau de la Commission. Et cette stratégie est en cours d'élaboration donc pour la Commission de l'UEMOA au nom de tous les États membres. Ce plan devait permettre de mieux valoriser la consommation des produits originaires de l'espace UEMOA Le directeur des petites et moyennes entreprises l'a rappelé tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je suis convaincue que les résultats qui ont découlé des réflexions et discussions au sein des différents panels auxquels ont participé Madame la directrice du commerce de la commission de mois Ces panels donc permettront de contribuer à la levée des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux dont parlait tout à l'heure le représentant du patronat. Mesdames et messieurs, en adoptant le mois du consommé local, les ministres en charge du commerce ont exprimé une volonté et surtout une ambition de réorienter avec l'accompagnement de la commission de l'UEMOA les modes de production mais aussi les modes de consommation des populations afin de mieux valoriser les potentiels de l'Union. Donc je saisis cette occasion pour remercier et surtout féliciter les plus hautes autorités du Sénégal, Monsieur le ministre, toutes nos félicitations et nos remerciements. Et nous souhaitons ici témoigner toute notre reconnaissance aux organisateurs, à la direction des petites et moyennes entreprises, au secteur privé, aux femmes qui sont venues massivement aujourd'hui. Et c'est aussi l'occasion pour moi de réaffirmer la disponibilité de la commission de l'UEMOA à prendre toutes les mesures nécessaires pour la pérennisation de cette manifestation. Je vous remercie de votre aimable attention et souhaite plein succès à la troisième édition du mois du consommé local au Sénégal monsieur Abdoulaye Diop. gërëm leen sant leen ci xew-xew bii nga xam ne at mu jot UEMOA daf koy def UEMOA mooy euh, kuréelu réew yi nga xamante ne ñoo bokk. Euh, Afrique sowu jant ay satu Kabo mi nga xamante ne moo ko fi toogal at mu jot ñëw ànd ak réew yëpp ku ci ne organiser bés bi nga xam ne moom lañuy ñu jaam euh, jagleel yéen ñi nga xam ne yéen ay jàmbaar jàmbaar yoo xam ne yéen ne ci tool yi yéen ne ci atelier yi yéen ne ci bitik yi yéen ay defar li nga xam ne moom lañuy ñuy dundee bés bu jot yàlla dafa def nag année bi ñu ne ci at moo xam ne yombul ndaxte ku xam àdduna bi ni muy doxee xam ne ci atum inflation maanaam ñaari at yi li ko gën a wane feddali ko bokk na ci yokkute bi am ci njëg yi dëgg la te lii nag ñuy waxtaanee tey muy bay dundee président Momar ndaw wax na ko léegi dama xamul ndax dañuy wax beneen baat waaye bay dundee ndax ci mbay la tàmbalee jëm ci leneen yëpp li ñuy sol li ñuy fi ñuy fanaan lal yeeg moo xam fauteuil yi ñuy utiliser meuble yeeg lépp dafa doon li nga xam ne bokk na ci solution maanaam euh, li nga xam ne moom mooy li ñu yaakaar ngir mu mën a dog jafe-jafe yooyu nga xamante ne nit ñi dinañ jànkoon jànkoonteeg moom. ma bëggoon leen ci jox rek benn misaal benn exemple xam ngeen ne at ñuy te léegi at bu jot mu am ndaxte bu nawet jotee rek njëg yi yokku nit jigéen ñi naan soble amul pombiteer amul dafa sob dafa cher ñu naan jën amul ci marché yi ñi naan ndawal dafa cher ak yu demee yooyu yëpp. loolu li koy waral mooy ñun bu ñuy bay légume lu mel ni soble wala lu mel ni pomme ku mel ni sëñ Jili Samb mi fi ne mën na ko wax dafa àndut ak taw ndaxte buy taw mën nga bay ay pepp moo xam mboq la moo xam euh, dugub la moo xam sorgho la moo xam basi la leneen ak leneen waaye toolu dër li nga xam ne mooy tax nga mën a am kaani mën a am pomme de mën a am li nga xam ne mooy soble mënoo ko def ci nawet bu boobaa nag li ñu soxla dañ koy jéegaane bitim réew looloo waral weeru janvier bu jotee li ñuy soxla ci soble ak pomme am nañ ko Sénégal da ngay jël saaku soble boo xam ne weeru janvier boo amee junni ak ñaar téeméer wala junni ak ñetti téeméer maanaam 6000 wala 6500 nga am ko bu weeru ut jotee nawet bu tàmbalee loolu dootoo ko mën a am ndaxte bi ci gën a yomb Maroc lay jóge bu jógee Maroc dëkk ba muy jógee neuf mille wala dix mille la ñuy jaayee saako boobu mu jaar ci port bi wala jaar ci yoon bi egg si Dakar douane baak nangam nangam mu mujj treize mille wala quatorze mille maanaam ñetti junni wala ñetti junni yu manqué ñaar téeméer loolu mën nañ ko wax ci yeneen ak yeneen donc ñun li nga xam ne mooy suñu avantage mooy ñu mën a bay at mi yëpp mën na am ñu am ay serre wala am ay magasin de stockage ba nga xam ne njëgu soble bi ak njëgu pombiteer bi du sonal borom kër yi ngeen doon donc loolu moo tax consommer local ci misaal boobu rek. moo tax président Macky Sall jox ko fullaal ko di ci def moyens yu bëri te ñu yaakaar ne moyen yooyu dina gën a bëri ndaxte li ñuy jàngal ci koom-koom looy gën a jëfandikoo li nga xam ne yaa koy bayal sa bopp di ko defaral sa bopp di gën a moom sa bopp ci économie. te moom sa bopp la ñuy wax nag ndaxte moom sa réew mooy moom sa bopp ci koom-koom moom sa bopp ci koom-koom moo jiitu ci loolu yëpp. moo tax may leen di gërëm leen di sant di gërëm ñi nga xam ne ñoo fi nekk président Amadou Seck bokk ci CNP. CNES gis nañ fi sànq seen Gueye remercier tamit waa UMOA madame Aïssatou Kabo remercier direction yi nga xam ne ñoom ñoo seq liggéey boobu yëpp mais surtout gërëm leen sant leen sargal leen yéen ñi nga xam ne ay liggéeykat ngeen yéen a ne ci consommer local gëm ko te gëm nañu état du Sénégal dina leen ci fekk yàlla fekk leen ci ba ëllëg lu ñu yëkkatee ci rek ne Sénégal lañ ko defaree Sénégal la jóge bu leen sonn bu leen tàyyi ku sonn ku ne yàlla dina la ci fekk waaye ñun ñu état yu Sénégal it ñu ngi ci dox jéego yu am solo ngir li nga xam ne moom ngeen di def mu fekk leen ci seen njëriñ ñu ngi leen di gërëm leen sant leen sant bu baax ci taxawaay bi ak fekkee bi ma allahumma salli ala sayyidina muhammad jërëjëf